moo leen di may seen émission roofoo ni fans list wala yu Boy Niang numéro 2 ñoom it daañu am seen wàll ci promotion Samsung Dios bii mën na noje ngir yokk seeni poñ yomb na dama ne jëndal benn ci Samsung Dios yi Lakota chat texto nari wala idi yónneel sa code email étoile sa turu mbër ci 24 1 2 3 fukki fan ak juróom yu ne fii ba bésu combat bi ñu xayma fan club bi ëppale ay poñ ngir jox leen seeni ngañaay ngañaay yi moo xam kaar yi leen yóbbu ci stade t-shirt casquette ticket entrée enveloppe xaalis bu nu mën a yendoo ci bisu combat seetlu leen bu baax ni photo mbër yi mi ngi ci paquetu portable bi ngeen di jënd jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ngeen daan nuyoo talaata bu jot ci waxtu yi tey di juróom benni fan ci weeru mars 2012 Euh, seen magazine Roffo di ci ànd ak nag Samsung comme ni ngeen ko xamee ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy émission bi ñoo leen koy may euh, mbokku téléspectateurs yi di leen wax asalaamaaleykum di leen wax euh, di ñaan yàlla bi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne mooy boroom kattan yàlla kàttan na ñu kattan na réew mi jàmm ci réew mi ku ne xam ne ne làmb ji fi mu ne ci trêve la ne ndax li nga xam ne ci la ñu ne muy élection yi ci kattanu yàlla ñu ngi ci cëppaandoo gi yàlla nañ ci génn ak alhamdulilahi rabil alamin réew mi yëpp yàlla jox te nga mérito ko nga muurloo ko yàlla defal la ci jàmm nga mën koo yor ni nga yore Sénégal kon mbokk yi di leen nuyu ku ne fa nga nekk sa kër di seetaan seen magazine Rofo tey nag euh, magazine Rofo dina ñëw ci kanam tuuti euh, làmb ji nga xam ne amoon na dimanche ji ñu gën ak Ami Kobo production danañ jëm ca Gàmbi tamit euh, nga xam ne moo fa amoon ci diggante Zos ak nga xam ne mooy Jille Mori loolu tamit amoon na ca Gàmbi ci wàllu programme yi aussi mois de mars bi ku ne xam ne ne am na lu ci chamboulé ci programme yi maanaam sooxe am na ci ndax xam nga élection yi ak campagne yi nga xam ne ci lañ jën dina am programme yoo xam ne foofu ñu pousse ko mais am na programme yoo xam ne seen borom dina confirmer na ko euh, ci kanam tuuti daañu ci ñëw ak suñuy invité tamit tey nga xam ne ñaari champion la invité euh, muy ji Balla Gaye muy directeur wu fi nga xam ne mooy école de lutte Balla gay muy Balla gay 1 Balla Gaye maa ngi ngañ maa ngi lay fay. Euh, ci sama nijoor tamit maa ngi ceek ki nga xam ne mooy champion bu mag bi di Boy Kayre moom it yor école de lutte bu Soumbédioune Boy Kayre maa ngi lay nuyu. Ngañ maa ngi lay fay. Eh, jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ci noonu nag la ñuy ñëw ànd ak suñuy invité euh, ci waxtaan yi nga xam ne moom laa leen wooye fi tey ku ne xam na ne Balla Gaye 1 mooy créé li nga xam ne mooy école de lutte bu Balla Gaye euh, Balla Gaye ginnaaw bu ma la bàyyi nga mbokku téléspectateurs yi. Ngañ maa ngi lay nuyu di la di sant yàlla ak Baye Laye ak Seydi bu baax a baax di kontaan si li nga xamee ni toog naa fii tey. Mm-hmm. ndax kër gi nee la suma kër la mm-hmm. ndax. ñu jëkk tudd Youssou Ndour doom man mii si laa bokk may yow yëpp sa papa di woon suma xarit ma toog suma doom suma rakk suma xarit suma lépp di kayre duñ koy wax booy kayre sax waaye xam naa léegi nag jombul daal war a ay booy bi muy xale bu baax xale bu yaru mhm. tey nag yaakaar naa ni soo ñu wooyee fi war nga woo mhm. ndax ku ne xam ne ni kër gi mooy këru leeral mhm. ngañ jaañet su wooyee nit ci làmb juddoo si làmb xam làmb yaakaar naa ni mbir mi dina mën a leer. jërëjëf daal ñu mën a déglu eh, eh, ki nga xam ne mooy Alaaji Balla Gaye Alaaji Balla gay nga xam ne comme ni ma leen ko waxee woon moo yor école de lutte bu Balla Gaye eh, sunu nijoor wax naa leen ko Boy Kayre ci ne Boy Kayre nag mooy président de lutteur en activité bien vrai que ci biir saison bi ci la génnee làmb ndax ay contraintes. ay atam des na waaye contrainte daf ci am ndax ku ne xam na ne doom ji euh, dafa takk ngemb ku ne xam na ne dernière sortem loolu day bokk ci histoire u làmb day bokk ci analu làmb euh, muy Boy Kaïré dafa bërindoo ak doomam ci benn tàkkusaan euh, tàkkusaan jooju sax ci la tekkee ngembam muy loo xam ne histoire da koy jàpp Boy Kaïré tey nga ñëw fi en tant que président des lutteurs en activité fii réew mi tollu tey Euh, ñu gis ne ñu ngi ci li nga xam ne mooy campagne électorale ñu ngi ci ay ay ay ay ay dugg ko génn mm-hmm. euh, làmb ci tamit am ci position mm-hmm. yéen it am loo xam ne ci jamono taxawee ngeen ko ci làmb mm-hmm. tey lan la ñu mën a jàpp ne yéen ak kuréel bi ngeen di représenté ak li xew ci réew mi maanaam sport bi en général jëm ci làmb lan la ñu mën a jàpp ne tey yéen am ngeen ci yaakaar ngir seen ëllëgu avenir u doom yi ak ñi nga xam ne ñoo ngeen encadré Euh, merci ngañ euh, je crois bien que euh, posé nga ñu question posé nga ma question boo xam ne. Mhm. dama ci sawar a tontu. Mhm. waaye ba ala euh, balaa laataa may dugg ci question boobu damay dama lay remercier ci invitation bi. Mhm. parce que je crois bien que ne tey euh, fii réew mi tollu tey laaj nañ comme émission yi mel nii ngay invité ñoo xam ne dund nañu làmb ji ku mel ni sunu sunu mun naa wax sunu papa ji parce que tey jii. dafa am ñoo xam ne ay idole lañu si si si làmb. tey jii man euh, Balla Gaye dafa bokkoon sama idole. ku mel ni ñoom Daouda Fall suñu idole la ñu woon ku mel ni ñoom écrit euh, waal ay Aline Sey mm-hmm. parce que man booy xool sax dama dama laal waal waal parce que man jaw laa sant donc ñu euh, tey ñu bokk benn émission dama koy rafetlu mm-hmm. nga ëlbatiku laaj ma ni euh, ni réew mi demee ak élection gi yooyu bi si njëkk mooy dañuy ñaan jàmm yal na ko yàlla def si réew mi parce que tey ji boo déggee ne bëri am na mm-hmm. fubal am na wala leneen am day fekk réew mi am jàmm te tey soxla nañu je crois bien jàmm ci réew mi beneen bi ma ci def mooy tey wàllu làmb ji comme ni ma ko laajee tey euh, làmb euh, dama ne tey dañu xaw dafa xaw a sooxe ci yenn infrastructure yi mm-hmm. donc euh, ngañ mu doon loo xam ne je crois bien que ne jaaxal jaaxal nañu la ñuy wax du ma ne sax jaaxal na mais jaaxal nañu te xëy na si kanam suñu pa suñu papa Balla Gaye na ci dugg mm-hmm. bon fii làmb toll tey ba tey amaguñu arène national mm-hmm. donc mu doon loo xam ne tey ji war nañ ko waxtaane bon pourquoi mënul am bon semaine bi passé rek jàngat nañu benn benn benn benn journal bu bind comme quoi ne bon il paraît am na benn société boo xam ne développé nañu un milliard teg seen loxo te ba tey bi ko bi ko état bi joxee ba tey mi ngi si sept mois hmm. te loolu mënul ba taxe fexe ba ñu teg premier euh, pose de la première pierre. Mhm. kon tey jii loolu lu ñu wala càmbar la xool ndax information boobu am na wala amul. Mhm. beneen mise topp mooy aussi suñu mutuel bi nga xam ne bon def na aussi un ko diggee ba tey te boobu ba léegi. Mhm. amul avancement amul jéego. te ñun ñi xam ne man mi nga xam ne man la ñu teg ci bopp kuréel gi. yow le président des lutteurs en activité. dama dafa jot nag ma leeralal askan wi. waaw parce que actuellement je suis interpellé par tous les lutteurs du Sénégal. sama téléphone day sonné comme am na soo xam dañu jot xalaat ne sax jox nañu xaalis bi. xëy na am na duñ ko luubal man ah, man na nag loolu euh, tey boo ma euh, invité dama ci sawar a wax mhm. pour pour leeralal askan wi leeralal le monde de la lutte euh, Kairé kon bu ma jàppee loolu ak formation bi ñu leen defal mhm. ak local bi ñu leen luyeel mhm. ak loolu lépp koppar yooyu duggagul seen loxo ba ni may wax ak yow nii koppar yooyu duggagul suñu loxo te je bi bien que ne nit ki soo ko diggee ñun dañoo jékki-jékki borom réew mi wooñu jaarale ko si Serigne Mbacke Ndiaye. Mhm. bi ñu woowee kat wuyu ji nañ ko parce que rek ku fi nekk nekk koo woo ñu wuyu si la. Mhm. bi ñu dalalee vraiment wax na suñu njàmbaar sunu xel ak xale yi nga xam ne gis na ni ne dégg na moom ne mbëri toll nañ si ñaari junni nàngam mais la ciy bëre barewul. Mhm. donc mu daal ñu dig benn mutuel. ñaata audience. boobu bii moo doon ñaareelu audience bi. ñaareelu audience. waaw bii moo doon ñaareelu audience bi. bu 2004 bi. bu 2004 bi yaa bi donc vraiment. bi ñu ko waxee tooguñu croiser les bras parce que tey buñ bu ñu la diggee da nga war a jóg si la jógee def ay formation génnee sax suñu xaalis mm-hmm. da dèjà dama ciy remercier sax ku mel ni Aziz Ndiaye mm-hmm. ak ku mel ni le président Aldo bi nga xam ne moo yor kër euh, kër Massar ak mbër yi nga xam ne ñoo nekk ci bureau yëpp dajaloo nañu def suñuy formation mm-hmm. vraiment ba jox ñu am suñuy diplôme ubbi daal ubbi benn local local bi nag ñu ngi ko ubbee ci fii ci parcelle ba ni may waxee yow nii sax bon am na sax lance un appel parce que aussi euh, nit ki bu fekkee dafa am lu ñu la dénk ñu dénk la ko muy muy mbëri dénk moo ko man dama leen di leeralal parce que aussi euh, téléphone yi bëri na sama kaw mhm. te man aussi dama war a seetal sama der mhm. ëllëg li ñu bañ mooy ñu ne ah kay rek ñu euh, ak le bureau là peut être joxoon nañ leen xaalis waaye dañ ko luubal ban information ngeen ci mujjee am ak kañ ngeen gëj a jokkoo ak ñoom non information bu gëj nañ ci am information parce que aussi je crois bien que benn bu fekkee ne doomu aadama dañu def un interlocuteur mhm. bon muy Serigne Mbacke Ndiaye moo doon suñu interlocuteur diggante président ak. Euh, ak l' waaw mais je crois que boo demee ba nga xam ne nag léegi da nga ko bon mënatoo ko jot. Hmm? boo ko doo ko jot hmm. bon moom it wootu leen loolu ça pose problème. problème donc je crois bien que ñoom dañu fi nekkal askan wi. Hmm. dañu bëgg si lépp lu ñu wax na leer gi askan wi bu fekkee da nga leen fi nekkal je crois bien que benn loo xam ne. da nga da koy da koy def si diggante ak askan bu fee xëy na problème bu am. mais aussi bu fekkee bon jot. waxatoo lu si jëm mhm. déjà borom local bi chaque jour mu ngi lay woo fayal sama xaalis mbëri di la woo di la donc kon te ñoom ñu déggoon leen deux milliards ñu déggoon ñu deux milliards mais daal li ma si xamal daal ba tey may wax yow ñi deux milliards yi gisaguñ ko dégguñu ko je crois bien nag ñoom lépp lu ci war ñu def nañ ko mhm. léegi nag ñun am na loo xam ne je bi bien que waxtaane nañ ko démb bon convoqué nañ euh, convoqué naa benn réunion boo xam ne c'est bon extraordinaire démb toog nañu waxtaan nañ mais je crois am na fu ñu teg suñu tànk yoo xam ne fekk fan yu néew daal dinañ génn def sorti xool daal naka la ñuy def ba situation bi da daal di décanté wu waaw mais est-ce di xaar situation décanté mbala mhm. def envers nga xam parce que réew mi tey ñaar ñaar ñaar la toll mhm. diw ko mhm. yor ko ñun euh, fi ñu toll mooy que euh, ak ku ko mën a yor ku ko mën a ko yor ku ne da nga war a gestu làmb ji parce que làmb ji aussi mënuñu fi nekk di bëri ci stade football yi di bëre ci stade bi handball yi di bëre ci stade bi basket yi léegi nag ñun suñu position mooy. Mhm. bi si njëkk mooy comme ni ma la waxee arène nationale bi ñu wax ñu euh, fan la toll. fan fan waaw. bi ci nekk bi ci beneen bi ci mooy suñu mutuelle ñu xam parce que aussi mutuelle bi daf ñuy dimbali ngañ. Mhm. dafay dimbali euh, mag ñi yor écrit yi. Mhm. day dimbali les dirigeants parce que jii comme ni nga waxee yow xam nga loolu chiffre bi nekk ci làmb ji xam nga ko. te ñëpp mënuñu euh, nga ci jël liggéey ci am ci loo xam ne ëllëg di nga ko sutloo. mais je crois tey ñoo mën a taxaw wax ñu loo xam ne ëllëg dinañ ci teg suñu loxo mhm. donc bu fekkee ne nag je crois bien que loolu mënagul am ah daal am na yoo xam ne duñ duñ ko wax nag parce que am noo xam ne soo ko boo ko naree def sax di ko xëy na bu waa euh, kenn euh, waaye am am na loo leen nar am na lu ñu nar mais li ñu nar nag mooy def benn point de presse. Mhm. Euh, si benn benn bref délai. diir bu gàtt diir bu gàtt nañ def benn conférence de presse boo xam ne dinañu woo ñëpp. presse bi yëpp ñëw toog ñu wax leen li nga xam ne daal fa lañ toll ak askan weeg le monde de la lutte. monde de la lutte jërëjëf euh, kooku mooy Boy Kairé di président bi nga xam ne mooy jiite lutteur en activité yi euh, ci loolu nga xam ne mooy mutuel bi nga xam ne euh, dañ leen ko diggoon fii réewum Sénégal diggoon leen ko te président waxoon leen it leen jox deux milliards ci loolu te it mu am ci appel yoo xam ne ci kuréel bi ñii yaakaar nañ ne xaalis bi dugg na. ñii yaakaar ne xaalis bi duggagul ba ñu commencé am ay bor ci loca location bi loolu lañ doon leeral tey te loolu am na solo bu ñu la dénkee mbiru mbooloo da nga koy leeral kon kooku mooy Boy Kayré euh, ci kanam dinañ ñëwaat ci moom laata ñu tàggoo teg moom Alaaji Balla Gaye euh, ginnaaw euh, loolu du ma dugg ak yow sax ci cadre boobu tey da nga yor école école boo xam ne tey su may xayma école bi booy xool en 2004 2005 nga commencé tabax tey ñu dem 2012 ñu ne école bi ay a ngi ci génn sa départu école bi nan nga demee woon ak xale yi ak nan nga ko tabaxe woon xam nga sos dafa metti mm-hmm. commencé mbir dafa metti maa ngi sax gërëmaale président Abdoulaye Wade mm-hmm. ndax it mooy sama président d'honneur école mm-hmm. di gërëm it waa Guédiawaye yëpp di gërëm mbër yi nga xam ne dañoo liggéey ba mbir mi yegg si fii ak dirigeant école bi ku demee ne ko ñoom Moussa Ndiaye Issa Diop ñoom ñi nga xam ne ni ñoom laa bokkal école bi ñooñu dama leen di gërëm bu baax parce que école boo ko xoolee xam ne du liggéey benn nit du liggéey ñaari nit mm-hmm. mbër yi liggéey nañu man liggéey na entraîneur yi liggéey nañu ñi nga xam ne nekk si kaw du ñu dimbalet liggéey nañu mm-hmm. waaye école bi nag sos ko lu jafe woon la mm-hmm. ndax booba tey amul xalaatuñu ko am na sax ñu ne woon ubbi nañu école waaye liggéeyuñu te it wax dëgg yàlla wax ak jëf duñu benn man dama ñëw jëf ñoom du ñu doon wax da ngay départ ak xale yi nu mu demee damay départ ak xale yi xale yi tëbuma rek départ ak ñoom noo def dama jekk bi yàgg ñu dem seeti président comme li Kayre wax ma àndoon sa mooy bi Moustapha Guèye réglé woon ak ñoom Tyson audience ba waaw 2004 si laa amee xalaat boobu ndax président dafa ni yéen mbër yu mag yi jeexal yi bàyyi ba xam bëreetu leen war ngeen créer dara pour dimbali xale yi bon euh, euh, président Alioune Sarr sax daana bokk ci kàddoom waaw président Alioune Sarr loo leen def muy lu mu bëgg ndax bëggoon na yar mbër yi mhm. am lu mu dugal si ñoom am lu mu leen bëgg dimbalee mhm. te bu école amul ndax nit boo ko yar ko yar su xale mhm. su jekkee ba nekk mag moo garab a yem mënatoo ko jubbante wala ma départ ko ay xale seeti dem euh, seetam subu géejooy pour defar kayit yi mm-hmm. ñu ne mënul nekk mm-hmm. si la yow a dem sa maître El Hadj Diouf mm-hmm. suma xarit maa ngi kii nuyu di ko sant ndax it lu mba lu neex tey bu jekkee ba sotti war nga gërëm ñi ko kii si commencé woon keroog mu may ma cent mille francs ma jënd lépp ngem di gërëm ki nga xam ne mooy tayiru aan nekk fële kii bi rek waaw léegi mu jox ma cent mille francs ni dinaa ñëw géejooy ma ñëw wut ay ngemb booba tax nekkuma Guédiawaye maa ngi si benn école école six Pikine mhm. fa laa nekkoon mhm. ñu commencé ante ak ñoom doomu Alioune ba yàgg ma jóge fa dem arène du Bakka Sarr jógewaat fa nag ñoom Alioune Seye ak ñoom la dëgër 1 sama mbokki waa laa toxu dem école mhm. ma dégg naan Balla Gaye fu ubbi beneen école ma ne non Alioune Seye fu nekk la dëgër nekk fa waalo yi waalo yi nekk fa mënu ma dem feneen si laa wëlbati dugg nag si fi nga xamee ne mooy école sees waxtaan ak waa Guédiawaye amoon fa benn maire bu baax Bokar Sadiq Kane kooku ku ma dimbali ba fii ñuy wax ni mi may jàppale ak maire yi fa nekk. Mhm. ndax su doon Balla Gaye doo nga loxo boobu du mën dara. voilà nekk bi ak xale yi conditions yi naka la woon. conditions yi ndax bi ñu par weer. Mhm. deux cent mhm. ku fay duggeet bu njëkk daan nga joxe ñett. combat yu yi noo ko préparé. combat yu njëkk ya Balla Gaye de mos njëkk a quarante mille. keroog jël naa suma quatre mille francs wala euh, lu ko ëpp sax ndax boobu ñoom Adama ma jël ko daggal ko bi Gaston Mbengue ma ko jëkk bi jox daggal combat jox ko Sambalaw bi Sambalaw bi waaw ñu fekk ko quarante mille francs keroog li ñu yóbbu ëpp na ñeenti oto kaar mm-hmm. booba tax gisuma kenn mm-hmm. xalaatuma kenn boobaat xale yi ñekk ñu jàmbaar yoo xamee neex na ñoo jàppale si laa ñëwee yàlla dem mu daan ko mm-hmm. ma gis maître El Hadj gërëm ko sant ko mu ne ma ko ma dem nag commencé dugg si kayit yi ñu ne ma nag kayitu école nan la ñu koy defar man ne man day maître El Hadj laa bëggoon tuddee école bi. Mm-hmm. ñu ne ma non bu fekkee bëgg nga mu am yow mbër nga bëri nga ba bàyyi bëri. Mm-hmm. wala judoka wala karateka looy def ba bàyyi ko. Mm-hmm. war nga si mën dekkalaat sa bopp. si laa ne ñu ko tuddee. Balla Gaye 1 def président mu kii kii Ndiaye. kii Ndiaye benn grand bu ñu naan Ndiaye. bu dëkkoon Géejawaay. ma ñëw def ko président après kayit yi génn ma ko na njëm. ñëw ci école bi Balla Gaye ñëw fa lees ñëw fa yeneen nit ñëwaat ma ko nag ñoom ba yegg seeg ñoom yan mbër nga amoon boobu booba tax amoon naa Mafal doomu Alioune Seye mhm, Mafal Seye amoon naa yeneen ni xale yoo xam ne xamatuma leen parce que ñoom Lac de Guiers 2 mosul jaar ci yow Lac de Guiers 2 dafa bokkoon si écurie Waalo mhm. ma ñëw fekk si écurie ndax Lac de Guiers mhm. sama loxo lu nekkoon ndax lu nekk si Alioune Seye maak Alioune Seye lu nekk ay at premier bi mu dugg see foofu di def booba di liggéey si frigo yi mhm. Aliou Seyni kii sama booy la sama benn xarit mhm. moo ma ko jox mhm. nañ ko jàppale booba temps looloo tax Aliou Seyni la dëgër de ñëw nekk fi mais booba temps ñi nekkoon xale si ak kër ga moo doon ñoom aar Abdou Diouf aarona ñoom ñoom booy mama ñoom mbay sàmba ñooñu ñoo fa nekkoon ay xale yooyu ñoom bu naa ma après ba école bi ñëw na ma ber sumay xale yu ndaw ñoom ubbi wut kayit bi boobu gisuma kenn chaque weer ku si masaan gaañu wala ku si wàcc ni père dama bëgg a naan tàng dama bëgg ndékki man maay dimbali nga ndékki ku si gaañu man maay dem faji la am si xale boo xam ne faar bi dem man man maa ko faj ku si xëy di jàng école yenn saa yi dama lay may xaalis nga dem léegi nag ñuy dem di dem ba école bi taxaw waaw xale yi commencé bëri maa ngi si jàmm de ñu commencé bëri quarante mille trente mille yëpp maa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm. yàlla def Elton dugg si. xam nga les ak Balla Gaye ñoo dugg si. waaw xale yu nekk xale yu am jom. nekk xale yu bëgg dara. Balla gi de ñëw lees ñëw. Elton ñëw maam Pape bu kii ñëw. Pape Konaté ñoom laas na ñëw mhm. ñoom dug laas ñëw mhm. léegi mu ko nekk kër gu mag mhm. si laa kon na ñoom si ni ba léegi yaa ngi ci jàmm jooju ba léegi maa ngi si jàmm la lépp lu ma rek laa koy teg euh, dinañ ñëw ci kanam léegi ci loolu faram ko leeral ko ba mu leer euh, ci jàmm jooju nga ne ak noo ko nekkee ci jàmm ak ni école bi màggee crise de croissance la mbala leneen na ci ne kër guy màgg la war a yokk néeg yi mbala am na ñàkk déggoo ci benn côté daañu ci ñëw ci kanam mbokk téléspectateurs yi dañuy dañuy dem ba stadium Iba Mar Diop ami Koba Faye production euh, dem euh, seetaani ambiance dellu si sa jàmm da Basiru Cam yariya ma doy géwal diin sa ndaare jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu seetaane ambiance boobu nga xam ne euh, dimanche la woon ci stadium Iba Mar Diop ami ko ba production doon ko amal euh, laat ñu ñëw ci combat Kayre yaakaar naa ne looy taggoo ci li nga xam ne mooy déclaration bi nga waxoon nga ko sànq. Mhm. ci leeral seen position ak seen taxawaay ci nga xam ne yaay jo yaa jiite mbër yi nekk en activité lan ngay tàggoo. Mhm. boo gisee tey image làmb ji euh, fem bi organisé bi nga xam ne kon jot na tey ñu am lu ñu moomal suñu bopp mhm. beneen bi si tam aussi di ñaan comme ni ñu ko waxee rek réew yàlla na fi yàlla def jàmm mhm. aussi sama doyen bi aussi bon ko ñaan alaaji Balla tamit mhm. euh, euh, njiit dafa metti te tey comme ni mu ko waxee ba mooy départ ci bi xale yi boobu ay trente mille quarante mille la ñu am donc je crois bien que li may ñaan xale yooyu rek que ñu xam ne kii seen papa mhm. ba muy ba muy ànd ak ñoom boobu dara du woon dara donc nañ ko gën jox jël xam ne daal seen papa la quoi. Mhm. nag papa da koy jox cër. waaw da koy jox cëru bàyyi moom mu jox la ci je crois bien que ne cool yi temps yi sax gis nañ ne xaw na judd ci écrit bi. Mhm. mais toujours rek wax jot nañu waxtaan ma ne ko il faut ñu muñ. parce que ñu yor écrit yi ñun man xam naa ci loolu malgré maa ngi doogaale nit ñi daal ñëw envoyé la vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp di xamal ne daal vraiment association bi comme ni ma la waxee fii ak mm-hmm. bu gàtt daal dinañ def benn conférence de presse maanaam daal yéen a ngi déglu réew mi waaw ñu ngi déglu réew mi ba xam ne daal fu ñun daal conférence comme ni ma la waxee rek mënuñu mm-hmm. sori mais conférence de presse bi si la leeral daal lu bëri incha allah lu bëri seen diggante incha allah waaye jërëjëf Boy Kairé amoon euh, comme invité ci partie bu njëkk bi ci nga xam ne moo jiite lutteur en activité yi mbokk téléspectateurs yi dañuy dem ba stadium Iba Mar Diop seetaan bu laal ziar na Sakka baax junior ba bu baax yaay Sakka Joor dafa wàcc bu laal taxaw ñàdd tolloog moom bu laal téena ca loxo bul laal ziar na saa kajoor ziar na bul laal bul laal daw na jël ko ngoobu ko saa kajoor jëppoon nañu ñëw ci suuf rëpp nañu sigi rëpp nañu sigi saa kajoor takk na ko bul laal a koy mot saa kajoor bañ na dëgg na rëpp benn tànkam tànku càmmoñ ba la sukk sigi jàppoon nañu ñoo ngay bëree ñoo ngay bëree ñoom ñaar ku ne jàpp na sa njomb marom ku ne sa benn loxo sa ngemb maroom Sakka dindi na loxo càmmoñam di wut di ziar waaye bu laal téy na bu mu dëgër ak loxo ni ba pare téye loxo càmmoñ loxo càmmoñu ñu loxo ni jooru Sakka Joor ñoo ngi teg Sakka Joor junior ak bu laal bu laal bu lan saar Sakka Joor nee na ko dinaa la laal arbitre bi àtte na arbitre bi nee na bu laal kaay arbitre waxaat naa ak ñun ñoom contacté na juge soufflé na xale yi dër nañu ñoom ñaar dër nañu ñoom ñaar bu laal yërnu na pour ziar daw na yërnu génn dafa yërnu tànk yi mel ni ku koy song génn loolu natt la bu dellu see mu doy waar léegi saaka joor moo nekk seen wetu ni joor bu laal seen càmmoñ bu laal ak ni tekki di ko xool. te nañ loxo Sakka Diop na ko ziaraat ko bu laal téena ca loxo ba pour fiile ko Sakka Diop bañ na bu laal ëñ na ko ëñ na ko Sakka bañ ñoo ngi ne tekk ñoom ñaar bu laal aw ñaar na ko pour tàq ko saaka door bañ na jéggi na saaka door saaka bu laal saaka door bu laal wañ na ko ñëw nañ ci suuf ñam ñaar trois appuis dara amagul wër na ko ndomba lan mooy am saaka door fekk na kal na ko ànd nañ ñëw nañ déglu nag arbitre bi nañ déglu arbitre bi ndeysaan nañ déglu arbitre nañ déglu arbitre nañ déglu arbitre nañ déglu arbitre nañ déglu arbitre bu laal laal na Sa Cadior na xeet jëlu ko dóor même seen diggante mu toj jibi ja xool ko jax ran añum ah, daw na tubb benn tànk bi dana ko wañ am du ko wañ jibee ngay bañ dina ko wañ am du ko wañ jibee ngay bañ jibee ngi rasu jibee ngi rasu di ko ngoobu añum ah, bay na ko rëpp na rëpp na ñaari loxo yi wër nañ ko ndomba lan mooy am lan mooy na ko ñëw nañ ca lan moo am lan moo am lan moo na ñëw yaar bi di jubile na de te waxaguñ ko dara bëre su ko mbër lalee da ngay xam ni kii day bëre seg yow bëre rek la lal Alioune Sèye Junior bëree rek lalal di la natt di génn di la natt di génn bu tee sa ñaari loxo daw rek coppet sa benn tànk sa pied d'attaque pied gauche mënu ko coppat képp ko bii ñoo wër la nga bugg ko yóotu mbàpp ko mu kàlla kale la wet ngeen dem. loxo ndijooru jokkeel loxo càmmoñu lang sànni numéro doo ko def ko téye lang nëb na nëb na jokkeel ñi tekk tey fàq dunu loxom nëbaat na mu rocc loxo bi nëb lang taxaw mu ngi leew jokkeel jokkeel daf mel ni kuy door rek daw bëgg ko fal mbaar ko lang dellu ginnaaw bañ roofoo nañ ca kaw lang dëbb na ko sol jokke lañ koy jokke lañ koy jéem a mbaar mu bañ ñaa ngi saaku yi léegi lang da doon long lang dafa yooru doon ko sàcc sa bëgg ziar mëbaat na ziar na baaxul mëbaat na mëbaat na daw na jël ko jottal rasu na jottal te lam fobbani ko fobbani na ko pour takk ko takk na ko moobu na ko taf na ko léegi pour yéen ko ma bañ doole doole léegi la nga boot saako yi jottal daf ko bëgg puus mu bañ. lan bañ na lan wàcc na pour dem Jokal dëpp na ko sol ñoo nga ca saak ya Jokal rocc na loxo càmmoñam Jokal forcé na pour yéen ko Lang jéegi lan la bëgg lenn amul lenn amul lenn amul ee eh, arbitre lu mu joxe wax mi ci ngàmb li ku yàq làmb ji ji kii dafa gumba bëri neexul bëri neexul bëri neexul na wut ay lewet si bëri neexul na wut ay lewet looy def looy def procure waay dafa daanu barki alxuraan bilaay dafa daanu mu daanu da dafa daanu ma ko wëree la nii la samba lii bilaay walaay biir la indi biir la indi wóor na pare nañu sifflé nañu génn seen diggante mobile tànku càmmoñam Mandela tànku càmmoñam léew to dafa mel ni kuy xeex ñu ko maa ngi lay ziar rek mobile di kii rek mu wàcc ñëw Mandela wër na ko ndombo mooy mobile mobile dugg nga ci gaal goo xamul mobile dugg nga ci gaal goo xamul Mandela bés na ko mobile sajju mobile da jàttu na complètement ñu des loxo bi di fetti mobile Mandela Mandela buddi na ko bay ko bay ko dóor na dóor ñàkk na maaman la ñëwee ku ñëwee maaman ñàkk mbaytin léemu na jël xeer sànni ko jël ko bekkaay tin ku ne sa tànk ni nga jiital mbaytin a ngi dox dox di ko wër dox na wut si ko nag léegi ñu ngi leew too ñu ngi leew too mbaytin a ngi dox day dem ni joor dem càmmoñ moo sut léegi moo ne seen càmmoñ bekkaay tin seen ni Mbaye Tine dellu ci na nekk seen nijoor Bécaye Tine seen càmmoñ xamuñ ba doon jàpp xamuñ la Bécaye Tine daw na song Mbaye Tine dëbb na ko sol Bécaye ngay bëgg a ziar Mbaye Tine dëbb na ko sol Bécaye ngi ziar Mbaye Tine ëng na ko mu bañ Mbaye Tine daf mel ni daf ko bëgg a takk Bécaye ngi ziar de Bécaye ngi ziar Mbaye wicci na ko mu ñëw mu takk jéegi ñu ngi ziar rek. ñu ngi ziar de ñu ngi ziar ànd nañu rëpp ñoom ñaar ci suuf Bécaye Thine jóg na Mbaye Thine Mbaye Thine Bécaye Thine ngi ziar rek Mbaye Thine am nga ba am nga client de ànd nañ ñëw ci suuf rëpp nañu Mbaye Thine wër na ko ndombo arbitre bi naan du ñëwul nii ñoo nga ca suuf ñoom ñaar. Mbaye Tine sajj na ko daan na ko drapeau juróom ñi nga ñëwal kat ñëwal waay ko daanee ñu ma indi rek non ni ma faral ñu ma indi jox ak ñoom góor Sall Sarr yi ñoom Père Pambaay ñëpp moom ngay num liñ la wax li ma wax teeyal sa premier grand combat la Dakar sama sëriñ conseil na ma ñëpp conseil nañ ma ñu jàpp ci ko nag. moo tax ngoon di bëre bi rek. waaw waaw. noo ko daanee. kii ni ma ko daanee dama ko daw muy dóor ma indi ko bëre muy dóor ma indi ko bëre après mu daw ma jaay ko poids. jaar na la ah. jaar na la. non man taalibe Serigne Touba la foofu muy seere ma. Cheikh Modou sama Serigne. foofu muy seere ma. bu ma ko daanee gis nga ko. dama ko boof ko gën a xam. dama ko boof. Eh, dama ko boof. Ami sa bisu tay nan nga ko yëgee. loo ko dundee. xanaa di wax alhamdulilah rabil alamina rek euh, di sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di ñaanal sama sëriñ góor ko ca ruq ba yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba muy wër ànd ak wër lool te mu yàgg fi lool lool lool di sant nag amateur yëpp vraiment ñëpp wuy si nañu làmb ji neex na képp ku fi taxaw di xam ne làmb ji neex na di sant Birame Ñang mi nga xam ne mooy parrain làmb ji yeboo na fi délégation di sant képp kuy amateur vraiment sant nañ a émotion bi yëngal jamono nga doon fan su ñaari mbër wala nga bañ koo doon am sa wàll ci promotion bi nga xamante ni ñépp a ci bopp produit Samsung paquet bu ci nekk boole benn télévision LCD benn machine à laver benn home cinéma benn réfrigérateur loolu yëpp kenn nit dong moo koy gañe fukki fan ak juróom yu ne daañu amal benn tirage boo xam ni ñëpp a ciy bokk nga doon fan su mbër bi wala nga bañ koo doon wala nga doon fan su Samsung yónneel sa code EMEI étoile sa turu mbër ci 24 1 2 3 wala sa code EMEI étoile Samsung ci 24 1 2 3 Samsung moo nu sagal seetlu leen bu baax ni photo mbër yi mi ngi ci paquetu portable bi ngeen di jënd. permission toog bi di xamante ah. sal dara ah. waaye kooku sa bët yu rëy yow. xanaa taw jàpp waay dama ne nag dama yàgg xam naa góobe. li ma wéyal six cent vingt deux li ma baax ci jeunes yi. te eh, xoolal eh. kon xam ngeen bii. non. du ko wax. Thé Cheval le thé des bons moments. Eh, jërëjëf euh, mbokk téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu demee service commercial dellu si seetaan leen lamb yi nga xam ne moo amoon dimanche ci stade Iba Mar Diop eh, grand combat bi gis ngeen ni mu demee eh, ñaari mbër la kenn kii moo gën a nekk jeune kenn kii moo ko mag muy euh, Bécaye Tine di ko félicité moom it ndax tamit euh, combat am gis naa ne day yegg. combat am day yegg kon engagement la ci ñëwee mais dafa daje xale boo xam ne moo ko gën a jeune gën koo frais. ba pare nag ëpp ko taay te it ëppul xale bi doole Alaaji bala Gaye yaakaar naa ne xale bi ñuy wax mbaytin na ko bàyyi xale yi euh, bàyyi xel ndax euh, bokk na ci xale yoo xam ne ñi ngi defaat beneen recomposition xam nga làmb toujours day am recomposition gis nga bi cycle presque yenn mbër yi di jeexal mhm. ci li yenn mbër yi di jóg ñoom Balla Diouf xam nga Balla Diouf ñoom Zos ñoom Bàcc Seras euh, Tafatine xam nga dañ fi defoon benn lëmbe koo xam ne mm. te groupe googu saa yoo gisee rek ñaari ciy gën a mbala kenn ñoo ciy confirmé euh, gis nga ñu ci des ñu ngi rëkkale wu actuellement di wutaat fu ñu génnee encore mm. ci diggante bi ci la ñoom Balla Gaye 2 ñoom Lac de Guiers mm. xale yooyu ñoom les 2 ak euh, Modou Lo ci la ñu màggee seen kaw léegi gis nga ñoom mbaytin ñii ay Lac Rose xale yi génération boobu fi mu ne ñoo ñëwaat Euh, xale bii di Mbaye Tine yow en tant que connaisseur euh, euh, lan nga ñuy wax ci moom ak comportement am bi mooy cinquième combat di cinquième victoire. xale bu yàgg laa ko jox ñoom parce que kii. Mhm. ëllëg dana tooyee Sénégal lu yàgg si affaire làmb ndax boo xoolee drapeau télévision man mii di wax yow. Mhm. teg nañu télévision mu jël ko. Mhm. sama écrit waaw donte sax waa géejoo du ñu bëri seen biir. Ah. waaye mbappat dañuy bëri bëri seen biir xale bi si bu ma ko joxee ñeeg léegi yàgg na ndax dama ko daan wax. ma booy kaay mu ñëw man nga suma doom suma lépp nga bañu ma la li mu bëgg mooy boo bis boo bàyyee xeex wala yar amul loo mun nekk ëllëg mhm. te it mën naa ne fii ak ñaari at ñetti at mhm. mbër dootu ko daan mhm. te it ndax sax dana daanu avant boobu ah, ndax lenn rek moo ko mën a yàqal mooy mu bañ a dégg ndigal waaye bu wane bu topp si gannaaw Mor Fadam topp si gannaaw Saa Kajoor ngay lum déggal waa géej waay amul lu mu mënul am ëllëg amul lu mu mënul am ëllëg kooku connaisseur ko wax euh, Balla Gaye numéro un euh, ci ki nga xam ne mooy Mbaye Tine ko félicité di félicité Bekay Tine ak tamit euh, xale bi nga xam ne euh, moo bari avant dernier combat bi euh, di Mandela ak mobile mobile aussi gisaane flanc gauche bi dafa deep trop boo gisee xale bi percé ko deux fois ci flanc bi ndax position bi mu taxawee Balla man comprendre ma ko c'est-à-dire waaw dërul dafa yuug waaw dafa yuug dafa yuug waaw mbër nag da ngay dër waaw suñu jëlee sa benn tànk bi si des mën a taxaw mhm. am na noo xam ne boo ko taxee jonkun loo sëgguloo dër loo kooku dafa dër dafa dër mbër day dër waaw booy sëgg sa ndigg mooy sëgg. Mhm. su ko defee nga dër mën a mais nag su fekkee nii lay bëree bëreem dana xaw a day war li mu war a def mooy mhm. xoolaat boppam parce que mhm. mbër bu fekkee da war a bëri di njool di bëri ndaa xeex nga war a def. wala boog nga ñëw song ko ndax am nga atu pour man ay tànkam. waaye nag bu ndox tuuroo. waaw rootiwaat rek. <laughs> rootiwaat waaw kon nag mobile comme yàlla def na daanu na. te ki ko daaneel laa mbër la. champion ndax Mandela. fi booy bi toll fa tollu toll si géej ak ndax Mor Fadam booy yi gën a garaaw léegi. Mhm. moom moo ko yore. moo ko yor moo ko yore. ah loolu wax la. Mhm. loolu ndey la. <laughs> yaakaar naa ne Mor Fadam dina jël ci loolu la so euh, comme ni ñu leen ko waxee woon mbokku téléspectateurs yi seen magazine Rofo dañ ci ànd ak waa Samsung Samsung euh, yàgg ànd ak euh, seen magasin Rofo tey ñëw nag ñu am ci gan Makhtar Lo Makhtar tey moo ñëw Makhtar maa ngi nuyu. maa ngi nuyu sëñ waaw di la dalal di la bàyyi nga présenté ñu li nga xam ne tey moom la ñu indil ci Samsung bi nga xam ne bii yaakaar naa ne mooy deuxième promotion bi nga xam ne indi ngeen ko ci euh, marque Samsung euh, te ñu gis ne da ngeen di gën a méngoog jamono lu ko waral. dëgg la euh, ngañ bii yoon xam nga daaw defoon nañ fi benn promo. Mhm. bi nga xam ne ñu ngi ci àndoon ak yeneen ñaari mbër. Mhm. bii yoon nag dañu ñëwaat boole ci nag ay innovation innovation ba léegi dañu ñëwaat indi leen ñeenti produit mhm. ñeenti produit yi nga xamee ne moo di lakota mhm. di jar quarante mille francs mhm. ak texto bi nga xam ne moo jar trente cinq mille francs ak itam nari bi jar vingt cinq mille ak edi bi jar vingt mille francs ñeenti xeer téléphone yooyu yëpp benn bu ci nekk dugg puce la te ni ngeen di xàmmee mooy euh, ni ñu ko photo bëri yi nga xam ne moom la ñuy def ci kaw produit bi nga xam ne ne bépp client bi koy jënd da koy wóor ni photo bi yooyu mi ngi ci. Mm-hmm. bu ko defee bu ko jëndee ba pare moo xam ne ah moom kat promotion bii Samsung di def. Mm-hmm. moom mën na cee bokk. Mm-hmm. donc loolu mooy li nga xam ne tey moom lañ te te dama eh, bi yoon mandarga bi mooy ñaari photo mbër yi. ñaari photo mbër yi dama gis fee passé. ngeen indi euh, ngeen indi woon beneen kii boo xam ne moom la ñuy ràññee identification kon yéen loo leen créé rek am na identification boo xam ne kenn du ndax kenn koo jënd. déedéet ndaxte lu. Euh, bii yoon dañu mm-hmm. ñëwaat dolli ko ci dafa njëkkoon a nekk mm-hmm. ndaxte booba logo authentique la woon bi waaw mooy wane ne mm-hmm. la waa Samsung ñoo la ko jaay te bu yàqoo fii ak un an ci datu bi nga ko jëndee bu demee danañ la ko defaraat doo ci fay dërëm tey nag bañ cee dolliwaat def ci photo yu mbër yi pour wane ne promo bii mbër yii la concerné ndaxte li ci xewaat lu bees mooy que ni non seulement dañuy fexe fans bi gañe ci waaye même mbir mi nga xam ne mooy bëri tamit bu ay fansam bu ñu jëndee lu bari ci téléphone yi dañuy fexe moom it mu gañe ci mhm. te loolu ni muy demee nii la waaw mooy fans bi bu fekkee jënd na benn ci ñeenti téléphone yi ba pare waaw dafa am lu ñuy wax e-mail mhm. pour mën koo am mhm. soit day def étoile dièse mhm. zéro six dièse am numéro e-mail bi boo xam ne quinze chiffres la wala mu xool bu yëkkatee batterie bi dana fekk numéro e-mail bi numéro boobu mu daat koy jël daal di envoyé SMS ci numéro vingt quatre un deux trois bu ko fa bu ko bu ci envoyé SMS bi boobaa day bind numéro INEM. ak mbër mi nga xamee ne mooy mbër mu faral. bu mu supporté ci ñaari mbër yi. waaw bu fekkee nag faralu ci kenn tamit mu bind Samsung. Samsung lay bind. Samsung day def INEM rek. Mhm. étoile def Samsung. Samsung waaw léegi bu ko defee ñaari ay bis yu nekk. Mhm. ñu xayma mbër mu nekk ñaata fans ñoo la. ñoo jënd ci ñoo ñoo ñoo wote ci ñoo wote ci yow. waaw ndaxte wote moo xew. Uh-huh. léegi bu ko defee. Mhm. bu ñaari ay bis yi jeexee bu ñu defee xayma bi. xool mbër mi nga xam ne moo ci ëppale ay fansam daal di mën a gañe li ñuy li ñuy gañe lenn la mooy moom mbër mi déjà mbër mu ci ëppale bis bu ñuy def combat ba mm. déjà da nga mën a gañe voyage pour sa prochain combat Europe wala États-Unis boo xam ne ñun ñoo koy fay jox la li nga fay nekkee mm-hmm. pour nga mën a entraîner pour nga mën a mm-hmm. defaru mm-hmm. waaye ci gannaaw la tamit yow mi nga xam ne fans bi am na loo ci mën a gañe mooy ne bu fekkee yéen a gën a bari yéen yoo xam ne da ngeen ci mën a yéen fans yi. mu leen di yóbbu stade ba ñu mën a jox ay t-shirt ñu man a jox ay ay casquette. Mm-hmm. ak tamit xaalis bu nga xam da ngeen man a waajal seen combat. seen combat pour que ngeen mm-hmm. bu ko ñaareelu pàccu euh, euh, cadeau yi nga xamee ni mën nañu ko cee am. Mm-hmm. ñetteel bi itam. mooy ñi nga xamee ni ñaari mbir yi faraluñ ci kenn ñoom Samsung la ñuy wax. waaw ñoom dañu def email yi def Samsung. ñoom mën nañoo gagné ci pack yi ñuy joxe. moo xam pack bi day ànd ak télé. ànd ak benn frigo benn split ak benn mini chaîne. loolu mhm. ak machine à laver. loolu mhm. lépp ñu boole ko. Euh, euh, fukki fan ak juróom ñu nekk ñu def tirage bu ko defee ñu ñaar koy gagné. xam nga boo gisee ma invité benn euh, coach benn mbër bi. Mhm. parce que coach yi dama leen invité fii. waaw coach bu ne damay invité mbër ñaari mbër yi. ku ci ne sa di dina toog fii. benn mbër mi coach am mi ngi fi. les deux. dégg nga dégg nga li ci am. dégg naa mais yow loolu ban appel ngay lancé Balla Gaye. appel bi may lancé kay mooy waa Guédiawaye waalo Casamance ndax bul fàtte ni dugal na de un lañ ko tudde waaw muy doomu daaw Daouda Fall bu leen kenn yóbbul ci njënd dëkk Géejawaay bu leen kenn dem ndax njënd ñi lu ñuy xëcc ci àdduna rek waaw bu ko bu sa waal waal duggee moo say gañ ah mais Pikine nee na Pikine xaw ma nag lu dégool di indi fii waaye ah, daal dégol moom lu mu fi mën a indi rek man maay ménagéru xale bi waaw maay coach maay entraîneur am maay bàyyi gaa yi daal lu ñuy jënd nañ. li wóor wóor daal mooy lu waa Pikine jënd. waaw di ngeen jënd ndax bul fàttali Pikine. waal waal yoo fa ëpp. Ah, ah. xam nga ne du ko les joolaay dañuy far. Uh-huh. soose yi dañuy far. Mm-hmm. bambara dañuy far ndax xeet mu fi ñu ko tuddal. kon nag li wóor mooy. kon yéen ay ëpp ngeen di jënd. man maay dem Europe. maay dem Europe maay daal. ah mais mais ah, bi commencé na kon. waaw ñu daal ñu lañ ko tagal ñaari mbër yëpp mm-hmm. ku ci ëppale li nga xam ne say fans yow lañ ñoo ëpp luñ jënd rek mm. danañ sa combat bii di ñëw booy def préparation bi ñu jàppale la ci ci wàllu biir ci wàllu li ngay li ngay yor pour mën a entraîner bu baax pour mën a préparer sa prochain combat euh, jërëjëf mbokk téléspectateurs yi yaakaar naa ne Samsung indi waat na beneen affaire xam nga bii yoon coach yi sax ñu ngi def lancé appel kii mooy coach su les 2 mhm. di euh, coach su Boy ñaa prochainement mooy ñëwaat ñëw toog fii moom it def appelam parce que tamit diggante Pikine ak Géejawaay jàpp parcelle ak Ndakaaruk li ko wër yépp ak ci biir région yi dégg nga ñoom def nañu appel pour que seen supporters yi jënd ci téléphone yi nga xam ne pour que ñu mën a gañee seen mbër mën a dem Europe ñu mën cee am loo boo xam ne dañ koy jël dugal ko seen kees ñoom fan si ah loolu lu am solo la euh, kon euh, Maxtaar lan dañuy ñuy ci promotion bi li bi mooy que ni bi commencé nañ ko gis nañ tamit euh, réaction bi nga xam ne moom la ci fans yi am mm-hmm. sedd na suñ xol lool mm-hmm. kon ñu ngi di gën a encouragé rek pour ñu gën a jënd ci téléphone yi mm-hmm. gën a bokk ci promo bi man cee gis seen bopp mën a fexe seen mbër gis ci seen bopp bu ko defee lépp daal di yemb daal lépp daal di yemb looy tàggoo xanaa di leen wax ni ñu ngi leen di encouragé ñoom mbër yi bu baax. Mhm. ci seen préparation bi ndaxte mhm. combat bi. Mhm. le 25 lañ ko programmé woon. waaye du ñàkk ak vote yi ñu jëm. ñu pousse ko ci ñu pousse tuuti. waaye lu ci man doon daal muy teewul promo bi moom mi ngi continuer te ñu ngi yaakaar ne bu baax. Euh, fan si dinañ ci gis seen bopp. ñu mhm. bëri aussi dinañ ci gis seen bopp. Eh, jërëjëf eh, jërëjëf euh, Makhtar Lo euh, di représentant Samsung fii ci li nga xam ne mooy wàllu tey bi eh, kon mbokku téléspectateurs yi dañuy dem ba Banjul. Euh, seetaan yi combat Zos ak Djine Mori bi nga xam ne moo fa amoon te suñuy reporter lamin Samba ànd ak équipe bam demoon euh, jëli luñu ko euh, dañ ciy def ñamale rek waaye moom ci boppam Lamine bu dellusee ci émission am dinañ ñëw nag ci yaatal ci li nga xam ne mooy làmbi Gàmbi yi ñu dem am luñ ci ñoom dellusiwaat yéen ba dem na ardo waay ña ngay yor du bakkan ya ma ngay nàcc dañoo bëre ndeysaan kurpeñ ya mel ni mbàccum gerte arbitre bi ataleen Luc Nicolaï day xeex jàmbaar day jàpp ma ne Luc Nicolaï day laaw jàmbaar jàpp na ma ngay rokas xam naa bi bi yoon ça sera la bonne ndeysaan fii la ndeysaan toute la presse sénégalaise est là la presse caxabal na ko Luc Nicolaï daan na Gambia Luc Nicolaï daan na jàmbaar Luc Nicolaï Luc Nicolaï mbilut Luc Nicolaï mbilut Luc Nicolaï Luc Nicolaï Luc Nicolaï Luc Nicolaï bu bëree ci Gambie wàcc na parce que Gambie ay anglais lañu di ndeysaan Angleterre da koy jàpp Angleterre dafa bëgg a jër tey mu tàng waa kii nag moo nekk ci turandoo TFM nag Angleterre door na ko Angleterre na ko wañ na ko laay laay wu yaay wu yaay wu daan na tàng jër Sénégal 2 Gambie 1 Sénégal 2 Gambie 1 Angleterre waay waay Angleterre waay Angleterre waay Angleterre waay eh Angleterre eh eh eh wol ma wol ma wol ma wol ma tas sa yaram a ngi tas yaramam ci suuf laay tas sa yaram alkaati la góor a jël na ko laay laay la laa daan nañu tas sa yaram góor a daan na tas sa yaram Gora daan nga tas sa yaram Gambie Gambie Sénégal 3 Gambie 1 Sénégal 3 ci man lay jëw man maa ngi lay nuyu. waa TFM jërëjëf waa Sénégal jërëjëf jërëjëf Lamine. bi nga gisee lu première fois nga organisé lamb fii Gambie sa xol sedd na. sama xol sedd na ne ñëpp ñoo gërëm si suñu mbokki sénégalais yi nga ne ñëw ak Gambie yi nga xam ne gërëm ministère yi fi nekk yëpp maa ak borom ndombo ndombo takk yi fi nekk yëpp maa leen di gërëm affaire bi neex na trop a a nag moom dugg nañ si dóor si atay dóor Kunta Kinte ngoog mooy jàkkaarloo ak Cartouche ndeysaan Kunta Kinte mag may fàttali ndeysaan je m'appelle Tobi ndeysaan Kunta jël na ma ngay dóor ma ma ngay dóor courtage sa ngay dóor kuy dóor kan la ñuy dóor kuy dóor kan la ñuy dóor laay laay la la Kunta ak cartouche cartouche na ko cartouche jël na ko laay laay la la xeex ba metti na kurbañ bay yaa nga mel ni mbàccum gerte woy yaayooy escanté nañu cartouche Gambie yëpp a ngi tàcc wax na dëgg laay laay la la waaw waaw wëttéen laay laay la laa ndeysaan Cartouche jóge na ca Ardo mais ku tàkkit de mën na xeexa ah. laay laay la laa ku tàkkit de Cartouche ku tàkkit de Cartouche ah, Medoune ña ngay xeex ña ngay xeex ña ngay xeex ña ngi koy jaxabal bañ na laay laay la laa ñu ngay bëre xale yaa ngay bëre ba dugg boîte vocale bàyyi fa message Kunta Kinte ak Cartouche pourtant journaliste non ah, caxabal na ko caxabal na na ko bañ na ma kii di way moom mën naa bàyyi mënul mbete seku ah, ah. waaw kii mënul way way place la añee place kii la añee ah arbitre bi woowaat na leen contactinte ak cartouche ñoom ñaar kii de fii rek lay dugg yegg si ah baal ma cartouche contactinte gisaguma ku ñu jox avertissement contactinte nee na ko katagal jeex na jeex na jeex na arbitre bi jeex na match buy leen ah am na lu ñu wax match nul match nul match nul Cartouche ak Kunta Kinte bu Gàmbi match nul lañu fii di ko yàq amul benn yar waay fii ku yàq yar la

laaj nañu sos ndax pare nga nee nañu jeex na ku suuf la ba dal na sos ak Djine Mory ñoom ñaar ñi ngay lewaatoo sos mi ngi ne tek Djine Mory mi ngi ne tek ñoom ñaar ñi ngay lewaatoo Djine Mory moo ngemb ngemb lu weex li sos moo ngemb ngemb ko wax dañuy xeex menun bi nu ko nga denc ko Zoss a ngi dox ci kawam mi koy déplacé Zoss ci Limouri drapeau Yaya Jammeh président de la République de Gambie laay Zoss door na ci Limouri door ma ne Zoss door na ci Limouri fay na ci Limouri Zoss ci Limouri ak Zoss ñoom ñaar Zoss jël na ko Zoss daan na ko Zoss daan na ci Limouri Zoss daan na Djine Mory Zoss daan na Djine Mory Zoss daan na Zoss jël na drapeau Yaya Jammeh Zoss daan na bul jooy bul jooy Djine Mory Djine Mory bul jooy

mais Zoss Zoss lu tax nga def ak nii ak Dina Mori. waaw man ji Lamine sama yaram dafa daw. xam la sama yaram daw. signature contrat la sama yaram daw. Lamine dama taw dama taw Dina Mori ne yow laa doon a Zoss. sama yaram dafa daw ma sëñ Sow du ma ko dóor. non dëgg la dëgg la ma ne ma sos yow la ma supporté da nga doon bëre ma ci rey sam bopp wallaay dafa rëcc man Lamine Lamine mosoo si may akalaat mbër mi ngi nii sama mbokk Sénégal lañ foofu mosuma leen akalaat kii tey li mu dafa fort ci man billahi dañ doon xolal billahi su ma sañoon maa ngi moom sax duñ dóorante mu mori li sos wax nii lan la def ci yow waaw man rek wax ma jàmbaar nga jàmbaar nga maa surtout doom ndam. moo bëreeg moom. dëgg dama ko bëggoon. bu caaxaan dama ko daan ñaan. yàlla nekk yàlla nekk star bu mag. bilaay bu ma jàkkaarloo moom yàlla jàppale am sax leneen lu mu yëg waaye comme lamb nii la a demee daan naa ku ne. kii say daan la nekkoon. daan naa ku dem naa Dakar seeti ko. Hmm. dem naa dóor dóoraat euh, seetaan seen contact hmm. du tey. waaye dama mënuma koo gis ba mu woon ci combat. jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu demee foofu nga xam ne euh, mooy Banjul ci combat boobu nga xam ne Jos bëri na ko Jinne Mori Jos daan Jinne Mori jëlee bu set wecc euh, dañuy wax ne Gambie dañu nekk ci apprentissage dañu nekk ci apprentissage ci niveau yëpp nag parce que ci taxi yi ñu ngi ci apprentissage. ci organisation làmb ñu ngi apprentissage parce que boo xoolee géew bi da nga naan yaa ngi fii ci stade Demba Diop kon sunu saako yooyu lañ fay indi ñoom it problème infrastructure def naa ci wàllu arène def naa ñoom it posé nañ ko ñu ngi ci apprentissage aussi euh, ci bëre dóor c'est important am na solo ci ñoom xale yi di jóge fii di dem ci ñoom ñoom it léegi la ñu jëlee fole voilà indi fii loolu tamit am na solo apprentissage boobu yàggee nañ ko parce que seen fédération bi ñëw nañ fii ak CNG bi liggéey fi liggéey boo xam ne euh, pour que ñu texte yi nga xam ne moo am fii Sénégal mën a dem foofu ci bëri dóor loolu tax ñu mën ko fa organiser kon je pense que ah euh, élèves Sénégal mooy Gambie ci wàllu bëri kon euh, ZOS dem na wan tamit ne moom it Euh, ci donneur de leçon yi la daan jinne mooru jëli bu set rek ni ma leen ko waxee woon Lamine Samba ak équipe am danañu dellu fii ñëw wan leen intégralité bi ak la nga xam ne coulisses yi nga xam ne def nañ ko ca Gambie bi euh, si waat nag ci plateau bi ak suma invité di Balla Gaye Alaaji Balla euh, ginnaaw bu ñu dellusee see jot nañu waxtaan ci itinéraire école bi mhm. école bi dafa am ay champion champion yi tey ku mel ni Elton ku mel ni Elton Elton dafa bëri ak Tapha Tine combat bu métti boobu ak léegi amuñu occasion pour ñu toog ak yow décortiquer sa combat après combat boobu tamit fan la Elton toll euh, combat bi amoon na tuuti coow après le combat euh, ci presse bi Balla ko suma ko sama màngam nangam euh, lan moo dox si diggante ak Elton. Elton dara doxul sama diggante ak moom. Mhm. xam nga it bu defit amee rek coow day am. Mhm. parce que defit ak coow ñooy ànd. mais Elton comme doom bu ma jur la si man. Mhm. ndax dafa am fu nu départ. Mhm. am fu nu yegg si. nit ki boo ko jëlee si loo xamee ni fekkee woo koog dara. muy xale. nga yóbbu ko ba douze millions. yóbbu yóbbu nga ko. liggéey nga ak moom waaye nag bu defit ñëwee rek. jafe-jafe ñu waaye comme man mag laa mhm. te ñu may wooyee seen bàyyi laa mhm. lépp lu mën a demee damay muñ rek di leen baal euh, comportement yi nu mu demee ci entraînement yi régulier niñ ci Elton fan la toll état de forme am waaw Elton depuis na après combat Tafatine tafa tafa combat Tafatine tegante wunu sax ndax gis naa ko nag si ma koy jox xaalisam léegi parce que man maa ko engagé mhm. maay ménager ah, ah, yow ménager nga en même temps waaw ba bari lu ma doon ci moom ndax Elton am na ay mbokk waalo ba pare nu bokk géej way gu nu bokk. Mhm. donc ba defit am defit am na ay nit wax nañu waaye daanaka man pour man daal defuma ko benn problème. Euh, Balla euh, ah. saison bu jeex ak léegi sa poulain bu toll noonu ñëwul entraînement gisu ko lan nga jàpp sa diggante moom. waaw li ma jàpp ne xëy na ay nit seytaane ñoo fa jaar waaye nag euh, loolu moog àdduna ñu ànd moog at moog Sénégal ñoo ànd. Mhm. ndax Sénégal bëgguñu ñuy ànd ñaar ñu ànd waxuma la ku bëgg ànd groupe. loolu mooy suma problème waaye Elton jotuwuñu dara. Mhm. suma doom la pour toujours. Eh, sama doom la pour suba sama doom la pour. Ah, tey bu ñu indi eh, bu ñu eh, tey bu ñu ko joxoon combat di nga ànd ak moom ci combat tey bi. waaw parce que mënu si ay combat mhm. wax gis ki école bu ñu entraîné. Mhm. waaye nit ki boo ko yoree. te xamuloo ko dara xamul nekk si xolam. mën a wax ne soo amul combat ma ñëw si si dem. li wóor mooy suma doom la. sama dëkkandoo la. Mhm. te it ay mbokkam ñoo ko jëloon teg sama loxo. teg sa loxo te ay mbokk nag waxaguñ ci man dara. waxaguñ ci yow bu waaw te moom it dëgg dëgg li may dégg coow lépp moom. Mhm. déggu mu wax ma dara. waaye daal bi mu bëreeg Tapha Tine ba léegi ñëwatu ci école bi. toog ba léegi gisuma ko ci école gisuma ko ci école bi euh, loolu euh, mbokku téléspectateurs yi euh, ci waxtaan yooyu la ñu bëgg a jëm ak ki nga xam ne mooy Alaaji Balla Gaye di wax ne tamit ak beneen problème bu ñuy wax les Lees mi ngi préparé combat boo xam ne nee nañu combat capital la ak Boy Niang moom état de forme bi lan ñu mën expliquer euh, ci les deux fan la toll ci li may wax si les deux daal moom mooy mbër mu mënul daan amatul. Hmm? fépp foo xam ne fa la mbër di yegg si yegg si na fa. Hmm. ndax lépp lu Balla gi dee mën benn war nag man mën lu toll noonu. Hmm. lu duubal lu Elton mën war na ko mën. ñoom ñooy daanante. ñooy añandoo si si bi ñooy reerandoo ñooy ànd si biir làmb ji. boo xoolee ba si biir mbër bi fi gën carrière sa la bokk. Mhm. waaye dafa amoon ñaari defet yoo xamee ni kenn ku nekk yaa ngi toog si yoonam. muy Papa Sow ak Modou ndax dafay daan di daan daan ba yàgg rek. Mhm. ñoom ñëw tegu si raay bi rek. Mhm. daal di koy daan jël place am toog si. mu reyantewaat ba ñëwaat toll fi mu war a toll. mi ngi mel ni combat bi muy bëreeg booy bi tey. combat bi ku ne xam ne waru woon bëreeg ndax lu tax bokkuñu temps. parce que boo ñëw lees boo xoolee daan na Tijaan. daan na Fëgala. daan daan na. Garga Mbossé daan na Garga daan na mbëri presque mbëri fii war a jóg yëpp daan na leen. ku mel noonu bu fekkee dafa ñëw taxaw booy ñëw di jóg dara mënu ko freiné. Mhm. ndax mbër bu war a yegg. Mhm. fi mu war a yegg am fu mu xool. Mhm. pour wëlbati ko doy jafe. moom mu bëre ak euh, booy tëndéej booy tëndéej bi daan. am neex ama neex. ñu delluwaat ne ko lees lees képp ku combat bu ñu wax lees ne ko booy ñëw nga war a bëreel. ma ne comme moom nga war a bëreel te muñ ko lu mat un an bu bëgg def année balance jël ko bëreeg moom. maam man wóorul li wóor mooy nga dajoon ci digg woon ku nekk maa la man mm-hmm. ku daan ñooñu war nga mën a daan kon moom fan ci préparation préparation bi nag naa ci que xale léegi Europe lu ñu kon dafa tukki man dafa tukki woon ñëwaat mm-hmm. tukkiwaat na ndax muy tukkaat man maa ne ko bi yoon déggoon naa seeg moom mm-hmm. man maa ne ko mën nga dem def sa vingt jours vingt jours boo defee vingt jours ndax nit ki xel ak xalaat dafa baax su doomu aadama soo defee boo ñëwee ñu xool parce que xam naa Europe xam naa fii mhm. ndax ni ngay mën a tranquille Europe tëdd nelaw ba jàpp li nga war a jàpp mënoo ko am fii léegi nag maa ngi sionu si fan yi pour mu ñëw pour mu wet mhm, ni kii na danaam ànd naa si dellu seen ànd naa si ànd nga ci waaw euh, di fàttali li mooy daamu Daouda Fall ji nga xam ne moo nekk ci loxo Balla Gaye 1 mi Daouda Fall ku ne xam ne ne ci membre fondateur écrit wàllu la bokkoon fii Balla Gaye soxi ko ba mën a créer école euh, mbokk yi euh, kon ci loolu ñu ngi ci biir école de lutte bu Balla Gaye tey am fii le directeur Balla Gaye 1 nga xam ne moo sos école bi mais dafa am benn combat bu ma bëgg ñu seetaan ko euh, laasana indil ma ko suma suma ci régie bi euh, muy combat Youssou Ndour Youssou Ndour ci waxtaan ñu dem Iba Mar Diop seetaani combat bu dellu si waat moo féete seen seen seen càmmoñ ndeysaan sama turu patron ma la yor ay waay fexe ba ba ba ba ba sigil ma waaye Ndour mbargaan ceer na fexe ba sigil ma Ndour mbargaan a ah, njaaxum daaw njaaxum ma ngay ña ngay rokkas yuusu ña ngay rokkas yuusu ña ngay rokkas yuusu ña ngay rokkas yuusu yuusu ndur daan na yuusu ndur daan na laay laay la laa nduura waali mbargan xamoon naa ni doomu rusloo oh, waawaay nduura waali mbargan laay laay la laay yuusu ndur daan na eh, jërëjëf mbokku téléspectateurs yi loolu combat la bu fi jàlloon li tax ñu indiwaat ko mooy contexte bi ni mu demee tey ma invité Balla Gaye eh, numéro un eh, Youssou Ndour mi yow yaa ko jur maa ko jur mu ci école bi. Mm. tey mooy première combat am. Euh, d' abord euh, sa diggante ak Youssou Ndour d' abord. waaw Youssou Ndour sama xarit la suma doomu bàyyi la. Mm-hmm. ndax la gay Ndour la ñuy wax. waaw ma jur doom bi. Mm-hmm. seq woon ak moom teraanga nag. ndeysaan ndax keroog bu muy juddu. Mm-hmm. da fekkoon may bëri tubaabu joor. joor. yàlla def mu jàppale ma sa bu baax. moom Youssou. waaw xale bi juddu. ma tuddi ko Youssou Ndour. Uh-huh. encore bu loolu noonu sax Assane Thiam mu nekkal. sama doomu ndey la. am na matériel yoo xam ne bu ko Youssou Ndour masaan yóbbu si orchestre bi man ñi mën naa ko yett mhm. première cadeau keroog bu mu takk so euh, takkee soxna si mhm. man yi mhm. man maa ko jëkk a jox cadeau muy suma xarit boo xamee ni fu mu ko bëgg a gis que su mu bëgg a wax si moom kon na Youssou yàgg nañu waaye nag li wër wër mooy nit gor moo jara seqal combat bii nag Youssou Ndour moom lañ ko tudde si bu ma demee ni ko sa turandoo day bëgg na la jàppal booy booy boo daanee benn la jàppal ñu ngi juwaat si beneen combat bii li ñëw si combat lees ñoom bi da siy bëriwaat ah, da bëre combat lees ñoom bi da siy bëriwaat ak booy booy loo booy loo lay bëre booy loo bu bu bu parcelle ah muy deuxième combat waaw ndax Modou Lo bu parcelle booy loo booy loo la ah loo ok d'accord Boy Lo nag dégg naa ndaanaan. ndaanaan la waaye nag Youssou Ndour dafa nekk si temps boo xam ne moom. mi ngi si ñaata at léegi dafa war génn mi ngi si vingt ans. mi ngi si vingt ans ah, bii mooy premier combat. waaw ah, bii mooy premier combat. voilà nekk ci école bi nga préparé. waaw école bi nag daf si am ñoom ñoom waraguñu génn sax. ay xal lañu. mu mel na parce que booy commencé bëgg ngay defar mbër xale ngay defar c'est que dama ko génn nii rek. Mhm. mais moom jotagul ñoom Balla Gaye senior ñoom Mame Balla mm-hmm. ñoom façon yooyu ñoo war a jóg léegi mm-hmm. waaye nag comme làmb ji da ngay entraîné ba pare jàngalaat ko làmb parce que mbapat amatul waaye moom it mbapat yu bari tëj na ko mm-hmm. ndax sama ni dafay jeex bu yàgg ma ne ko drapeau yi doyal naa si ndax mu ngi bëree fu nekk waaye li wóor ma wóor daal moo di moom dama ko woon yoon pour mu jaar si rek xam ni fii lay terminé waaye moom bëreegul parce que balaa muy mën a bëre ñi sama gannaaw jàll parce que entraîneur waroo am doom mhm. waroo am jërbaat mhm. waroo am na ñëpp nga yemal kon Youssou Ndour mi moom laa yemaleeg ñëpp mhm. combat am nag yomb ndax koo wax mën la jox ma Youssou kon ah. na xale yar yar nañ ko si làmb sa morom lu jaay nga def ko ne yaay sa morom bàyyi nga def ko bàyyi kon bu fekkee ni respecté doomu aadama yi combat bu jafe eh, jërëjëf euh, mbokk yi combat bu dañ ko doon seetaan ak Balla Gaye euh, ci ki nga xam ne mooy doomam jooju nga xam ne moom la tuddee Youssou Ndour di président directeur général euh, groupe Futur Média di ko félicité ci li nga xam ne mooy combat boobu def na ko di xale boobu di ko ñaanal tamit gudd fan gu ànd ak wér bàyyi ma ngi toog di Balla Gaye kon je pense que ñi ngi ci école de lutte Balla gay ba tey ndax actualité bi moo ko laaj Balla Gaye numéro 2 Yaxya Diop Yékini ñi ngi jëm ci komba yaa ngi toog yow yaay coach école de lutte bu Balla gay laata loolu dañuy dem xooli arrivé Balla Gaye dellu soit ci plateau Kajoor mais guy gi ku gën a cuune tey moo ko daan muy biir bi buñ ko téye du doy. waaw. guy gi amul mën a man mu ngi jëm dinañ ko jën dañ koy jën gën mu yem leen Hey! waaw jàmm rek waaw ak lan loo may daal. états la mel waaw sedd rek sedd liggéey bu ñu fi yóbboon yàlla dogal nañ dem nañ ba ñëw ñu sant bu baax ci li liggéey quoi. ah laaj naa la ko. wala volume ma ay poids man doole laa mais dañu man du ma wër victoire lu ma gëm la damay jàpp bëri daa ñibbi loolu laa gëm xam nga. waaw waaw danga man mu ngi sama diggante ñoom la du ma nekk fii ci ay rajo wala ay télé du ma ko wax. donc lu seet loolu xam nañ ko. sama man la concerné quoi. ñaata fois na lu ci kenn mën nañu bët. man géejuwaay laa gëm. man li ma mënut wax rek mooy man géejuwaay laa gëm ñoo tax may rente suba ngoon guddeeg bëccëg eh, di sant baax li nga xamante ne dama naa ko wuti ko ñëw naa nag incha allah dama koy mottali eh, fas ko nag. après nga génn teral li ma li ma jëli woon teral ko. Sénégal jëm kanam. naka nga ci lépp non pas mystique man gëmma man nee la kon li ma gëm mooy suma bopp. jàpp bëri daal ñibbi ñu tox suma ginnaaw bëri na sumay encadrement bëri na suma waay mbokk muy Casamance bëri nañ dañ may jàppale suba nga sa ñoom laa am ak sumay mbokk ak fan si Balla yëpp donc man daal li ma gëm mooy incha allah bëri daal ñibbi daal laa gëm dembali ak lan. élection yi premier tour fekkul la fi voté voté woo naka nga. man mbër laa man mbër laa dama dama mbër laa dama moom mi bëri dangeen bëri yàgg yàgg may buy des na la mos a ñam gëm naa ko. balla doomi Casamance yi le lion de Guédiawaye Maodo Malick Gakou seede ma. hey daan banlieue kontaan ñu doomi day la de déet da oh balla eh, jërëjëf mooy arrivé Balla gay eh, bi ñu ci aéroport eh, jàpp daan ñibbi ndax lu yomb la. waaw xam nga it nit yëpp wax dëgg yàlla li mu gëm rek lay wax. li mu gëm lay wax. waaw waaye kontaan naa trop ndax gisaguma ko. gisagoo ko gisaguma ko waaye li ma gis ni hmm. kontaan naa si trop. loo gis yow xam naa ni liggéey na. lan nga gis. li ma gis mooy liggéey na. liggéey na yokku na. Hmm. ndax poids bi mu yor soo gisee bu mu baaxoo am na doole jooju ndax woyof na. woyof na kon nag li ma ma gëm daal mooy liggéey na. liggéey na waaye li mu waxeet gëm na ko. gëm na ko waaw. yow foo tolloo ko moom ci liggéey. waaw fi ma tolloo ko moom ci liggéey commencé ko ñu waaye daañu commencé. kañ ngeen koy commencé. non c'est wóoragul waaye nag euh, li wóor daal mooy. Hmm. li ma gis nii daal doy na ma moom gën naa ni li mu gëm wax ko. wax ko mën na ko doy na. waaw euh, coow li euh, fan bari na. am Balla Gaye jàppal Balla Gaye 2 ba nee sax entraînement nga juyoo ak moom. waaye coow li mooy moom defuma dara. Hmm. ndax nit ki bu dee sa papa sa papa la. Hmm. te ay nit bu ñu ànd ñu war waxante bon bon bon bon soo ma di jàpp daggale bii ma dem màkk ñëw. su ma ñëwee. war nga fa ñëw. siyaaran mm-hmm. loolu rek mais jotuwuma moom dara kon bi nga jógee léegi loolu la waaye moom jotuwuñ dara mm-hmm. dem na Amérique ñëw na li ma gis sax moom bu ma deful woon dara ñëw foon sax du ma ko mm-hmm. li wóor wóor mooy dama bëgg mu gën maa yëg mais jotuwuñu dara jotuwuñ leen dara toujours man kii ñaana lépp lépp foo xam ne bëgg na fa yegg mu yegg fa waaye moom sequnu dara ndax nit ke da naan dafa la wax lii waxuma dara da nga naan def ma def ma dara daana jokkoo ak yow téléphone waaw li wóor wóor mooy sunu jokkoo téléphone du bare du bari waaw bi mu ñëwee léegi bi mu ñëwee léegi yàggul. Mhm. du dëgg. Mhm. kon li wóor wóor man saal bi laa am am na wax ju fi am sama gannaaw. Mhm. yooyu yëpp mën nañ ko sa bañ a wax parce que kii bu mu nekkulee dara. man rek la woon. bu mettee man rek la woon. kon bu njëkkee ba nekk dara. wala mu bëgg dem noonu rek sans ñu bëgg doxal ay sama diggante moom dañu yàq. ndax est ce que ce que tey euh, Balla Gaye euh, su may wax damay teggi Balla Gaye fële man mm. pour man xale la. Mm. pour man. am na loo xam ne sax dama ko cay épargner man personnellement. Mm-hmm. Euh, sa diggante ak duubalees naka la doxee rattax na rattaxul parce que dafa am lu dox sa diggante. moom muy xale bi mosuñu jot dara xale bi doomam la. yéen a ngi waxtaan. duubalees ba fii may wax yow nii mm. mosuma jotee ak moom dara yaayam si bi ma demee màkk dem naa ba sa commissaire fi mu nekk. Mm. ma yëg bi si douzième étage mu nekk moom ak euh, ak euh, kii ñoo bokkoon néeg. Mm-hmm. di sooda maam maa ñëw bu douzième étage ma mhm. nuyu ko waxtaan ak moom mhm. ne ko fii di ñëwoon naa fi daaw mhm. kon ren jii war naa fi ñëwaat seet si la ndax daaw sama benn xarit laa fa doon seet ren maa ñëw bu douzième étage seet si ko waxtaan ak moom bay mu ñibbisee bay ay wëlisam teg teg fa waaye nag bu mu ñibbisee gisante wunu bàll bàll gay de dubal na jotu wunu dara parce que Double Less bokkuñu yoon. yéen a ngi yëgoon. Double Less suma mag la. est que yéen a ngi yëgoon ci comme li ma mag la. waaw sama xarit la. waaw waaye li woon ndax du ndax xaritu Daawuda Fall te xarit Daawuda Fall mooy sama xarit. Mhm. te Double Less mosul séq benn waala waal lu ñaaw. ma mhm. jàpp ko si boobu boor. Mhm. man mosuma séqam dara lu ñaaw. doomam moo ko jur. nit ki bu fekkee dañuy wax dëgg rek. ak lu si mën doom ji doomam la. alal ji alalam yéen a ngi ciy waxtaan est-ce que yéen a ngi ciy waxtaan non moom waxtaanagun mosu leen waxtaan si mu jógee màkk moom duba lees dem naa ba fu seeti ko kër fa laa yellu man ak ñoom Pape Diop mm-hmm. dem naa daaw màkk dem naa ren màkk moom moo moom mooy moom mooy moom mooy ménager Balla Gaye mooy ménager Balla Gaye parce que doomam la waaw du dëgg mm-hmm. su ñëwee daf koy engagé da koy engagé mm-hmm. parce que du ma xëccoo nit ak nit ak doomam du ma xëccoo nit ak baayam te fii may wax yow damay ba nit ñi di yokk Balla Gaye de jotewuñu dara xëy na loo gis ne dafa am étape boo xam ne bu fa tolloo wala nit ko xam bu toll si état boobu dafa am noo koy jàppe Youssou Ndour moom kër gi tey mhm. soo ko jàppe Youssou Ndour 71 du sotti du sotti si si bind bi si melokaan beneen Youssou Ndour mhm. ngay gisaat Balla Gaye demee beneen Balla parce que am na jabar am na fu mu yegg am na doom yor na responsabilité mhm. man yëgeel bi rek laa am si moom nga am ci moom saa yu ñëwee taxaw ni ma papa kat wala père père Balla Baye Balla may wax Baye Balla lii ak lii damay jëf la mu wax waaye nag bu fekkee loolu amul ay nit jaar fi ñëw na école ba mhm. maa ngi jaar bii boor di ñëw mhm. mu jaar bii boor dem te foofu du woon suñu gisee mhm. fi nu war a gisee mooy sama kër wala pàkk ba moom xam na bu baax su ma tëddee gauche xam ne ne maa ngi tëddee gauche su ma tëddee droite xam ne maa ngi tëddee droite parce que sama bopp laal sax xam na fu mu fiit du dëgg kon donc nañu bàyyi yàq bi ndax lu lal na ba nga liggéey ku toll na Balla Gaye ku toll na Elton président teral leen teral club bi. Mhm. waaye du ñu war bàyyi si jàmm bu ñu. mais dafa mel ni ba ngeen jógee audience ba léegi juboo amatul. lu ko waral lu ko waral mooy nit ñi dañoo baaxatul léegi. Mhm. te bëgguñu nit am lu baax. te man dama bay fas yéene école bi ñaar téeméeri ak quelque ñoo fa ne ñoom yuus ñoo gën a tuuti. ndax ndax da ngeen jubawul ci ci ci bëgg bëgg foofu yow nga ne Ablaye Wade nii moom mu wax keneen bi et puis gàkku Gakou amit coow ma. Euh, Malick Gakou moom dootuma wax parce que président demeure la woon folli naa ko Abdoulaye mooy sama président d'honneur. yow yaa ko folli man maa ko folli. ah noo ko follee. ma ko follee maa ma sama école may gisuma ko. ah loolu Ndiaye fa jëkkoon nekk ma jëlee ko fa. Malick dafa hmm. na école bi. lu ko waral mais ñaari kuy du ñu bokk benn mbal. Euh, non non attends Malick dafa dafa dafa dafa dafa mënatul jàppale école bi mbala dafa dem ba tële. Hmm. na ma man jàppale na. Hmm. xale yi waaw. du dëgg. mais lu nekk dafa am jamono. du dëgg. jamono jii ma toll nii exact. parce que ni mu bëgg saal bu mu entraîné laa bëgg. Mhm. ak oto boo war. Mhm. ak oto boo xam ne xale ku sam combat nga mu dugal la si nga dem làmba ji bëri ji ñëw. da ko ko wax mënu ko. non. waxtaan ngeen ci loolu mos ngeen ci waxtaan mos ngeen ci waxtaan. waaye nag nekk ku ne xam na ni. Mhm. Abdoulaye mooy président Sénégal. Abdoulaye dëkkul Géejawaay Abdoulaye de pour mu nekk président de école bi. amul ko benn njëriñ. mais dëkkul Géejawaay de. Abdoulaye Wade Malick moo dëkk Géejawaay. Abdoulaye mooy président Géej ñi nekk Géejawaay moo wax. nga defoon ko président d'honneur. waaw dama xamul ndax lan manque performance la. ma ak ñoom. Mm-hmm. man damay mm-hmm. dama doon ma Abdoulaye soxla nga soxla ma doo ma gis. Mm-hmm. sama sama kër gée gun gée bi cité balaa. waaw bu ñu ma soxla Abdoulaye Wade ma kaay dama la soxla du ma fa yendu ji. kon kon kon président Abdoulaye Wade moo remplacé Malick Gakou ci école bi. non remplacé ko def ko moom. moom moom école eh, eh, bi yow yaakaar bi nga am ci moom parce que nee nga eh, ay infrastructure est-ce que nit mën naa am yi nga wax waaw daf la ko defal Abdoulaye waaw ban ak ban jox nañu oto yi anu saal ba defal na ko bi seet woo nañu ñi nga xam ne ñoo ko war a ñoom war a seet fan ban la jox ma ko saal bi joxuma man Kéejawaay mm-hmm. la jox Kéejawaay te bëgg naa xale yi ah, école Balla Gaye du saal école Balla Gaye école ba oto Balla Gaye école lan la oto yi oto école bi la auto école bi Balla Gaye de si la bokk. ci Elton si la bokk. Mhm. Lees si la bokk ñu ñëwagul si la ñu juddoo si la ñu bokk. Mhm. benn oto yi du mu ngi fii gaare. ban dama jëme seen bàyyi formé mhm. kenn ñëwul may sonn ak ñoom ba fii ma toll maa ngi sonn ak ñoom parce que am naa lu ma naqari torop ndax ñu may bëgg a booleeg ki ma gën a bëgg sànni Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 di ma booleeg Elton ku ma gën a lees la sama doom doomu Daawru Fall ndax alalu àddina yi Balla Gaye war na mën defar kër oto dugg ni ma père dama jël la géejewaay. déedéet Mbappé léegi ñu jub revanche ñu bëgg a daw. Mbappé leen daw. waa léegi dinaa fàttali téléspectateurs mu mujj bi mu mujjee bëreeg Papa Kane numéro 2. waaw mu ko Papa Kane daanee. Mm-hmm. Balla Gaye mii euh, mm-hmm. ci dënnam xale bi jooy. munuma déwén laa koy indi ci arène. déwén laa koy indi waaw ko tudd xeex naa ci moom. yow xeex nga si ba tey du dëgg jërëjëf. waaw kon bu fekkee lu mel dafa am waaye dëgg-dëgg. waaw président Abdoulaye mm-hmm. école bi amul ko njëriñ du dépassé na yooyu. et pare que waaye nag pour rafetal ko. waaw rafetal suñu kilifa. nit ku ne sa kilifa da nga koy jox cëram. Abdoulaye lu mu bëgg damay bu jinne bëggee doxaar. Mhm. ku yéeg daanu. Mhm. man de moom la mu mhm. nekk sama gannaaw. dama ne leen. kenn ko yaa sa bëgg-bëgg. man de si Abdoulaye Wade dama koy topp mu jeex tàkk. ànd ak moom daan wala mu ànd ak moom jóg. jeex na jërëjëf fooy tàggoo ñu ngi damay tàggoo mooy di gërëm ñëpp di mm-hmm. ñaan yàlla jàmm ci réew mi mm-hmm. ndax it dama la wax ne ngañ mm-hmm. réew kenn moo ko defar te jàmm amul ñun ñoo xam dañuy liggéey ba yéen journaliste yi liggéey mbër yi am ay millions di jëndi kër waaye ni ñu nu may jàmm ba ñu jaxase jërëjëf jàmm rek am géejaway jërëjëf maa ngi koy gërëm di ko sant ndax temps ci laa jël ndax dafa nekkoon ci réunion ku ne xam na ne actuellement ni euh, école bi ngi préparé ay combat ma siif ko tey indi ko alaaji Balla Gaye di ko gërëm di ko siyaar du ma ji sama xarit marit euh, di fàttali ne programme yi sunu kanam dimanche 11 mars Mbor production dana ko amal ci Amadou Bari diggante Ndandi Fall ak Boy Sey numéro 2 le 16 Naaru Sokas ak Thiat loolu promoteur bi ñu ngi ciy réfléchir ndax euh, campagne bi nga xam ne day ubbiwaat deuxième tour bi le 17 mars diggante Mamballa Papi envoyé le 24 mars sa Thiès euh, diggante Pakala ak Forza euh, jot naa tamit ki nga xam ne mooy Luc Nicolaï nee nañu ñu ngi ci tànku renvoyé ko moom la a jege xam nga face à face Yékini ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye waroon am diggante trompeur kat euh, numéro 2 Baye Sow production moo ko waroon amal le 24 boobu boobu tamit ragal naa mi ngi ci tànku dàqu le 25 moom diggante Boy Niang ak les deux jokkoo woon ci ak Aziz pour mu leeral ma ci jotuñu waxtaan ca loolu waaye defe naa ñoom it ca waxtaan boobu le 31 mars Euh, Malal Ndiaye ak Cheikhou Diène kooku Tayga production moo koy amal ñu jëm la 4 avril ak Gaston production diggante Tonnerre ak Sa Thiès mbokku téléspectateurs yi foofu laa leen di tàggoo di leen jox rendez-vous euh, talaata jii di ñëw ci seen magazine foo jëre ngeen jëf. yéen mbokk ñoo ngi leen doon présenté ñeenti modèlu Samsung Duos yu bees ndax xamoon ngeen ni model bu ci jënd rek mën ngeen a bokk promotion bu mag bi Samsung Dior di amal seen mbër mën na cee tukki dem ci États-Unis wala Europe na ji ngir préparer combat mu gagné nag yomb na jëndal benn ci Samsung Dior si Lakota Cha Texto Nari wala Edi yónneel sa code email étoile sa turu mbër ci 24 1 2 3 bu promotion bi jeexee la ñuy xayma mbër mi ëppale koy seetlu leen bu baax ni photo mbër yi mi ngi ci paquetu portable bi ngeen di jënd. Samsung moo leen doon may seen émission Roofo.